président Cheikh Bara Dolly Mbacké président groupe parlementaire liberté et démocratie euh, sànq bi nga xamante ne ubbi nañu session extraordinaire ba pare président dafa woote ñu amal di ñuy wax conférence des présidents euh, conférence des président boobu nag amal nañu ko ba pare ci biir conférence des présidents bi wax naa leen ne leen euh, ki nga xamante ne mooy vice présidente groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar dafa proposé commission bi ñu ngi koy amal commission des lois bi ñu ngi koy amal samedi plénière bi ñu amal ko lundi man nag li ma leen xamal mooy loolu dafa euh, boo gisee toujours rek seen euh, loi d'urgence yi parax parax rek lañ koy amal ndax man mënuma d'accord député yoo xam ne tey la ñu jël tey seen procès de loi liiraguñ ko samedi ñu bëgg leen a woo commission des lois ci loo xam document boo xamante ne code électoral bu bees la wàññeekuwaat nekkaat ay 110 pages vraiment jaadu woon na ñu may député au moins 10 jours. pour que député yi man koo liir comme ni ñu ko yoon maye waaye boo gisee ñoom lépp lu ñuy def rek ci parax-parax lañu koy abal doon loo xamante ni lu ñu ñaawlu la ndax toujours doole rek lañuy ñuy wane ci en tout cas nun ñi nga xam ñoo nekk député yi nga xam ne ñooy député opposition bi nun dañu koy rejeté xam nga liy wane ne dialogue bi amul sens dialogue boo xam ne ña ko doon def amuñu ay député assemblée nationale dialogue boo xam ne ña ko doon def fañ koy war a dogalee ñoom bokkun loolu mooy wane ne dialogue bi ña fa ne woon du woon lu sérieux parce que ña woon amuñu kaddu ñi am kaddu dëgg-dëgg mooy parti yi nga xam dañoo am ay député assemblée national ci nun dañu koy rejeté parce que ànduñu ci ndax xam nañu ne lii nga xam président Macky Sall indi na ko fi dara jaarul yoon ndax nun dañu waxoon nun waa parti démocratique Sénégal ne dialogue amul farce moo am comme ay farce la nuñ nuñ participé ci loo xam ay caaxaan la léegi nag leer na nañ finalement lan ngeen tënk ci jour bi ñu finalement ñoom li ñu tënk mooy samedi la ñu amoon commission des Euh, lundi ñu amal plénière bi. yow est-ce que di ngeen ci participer yéen. non participer gi mooy déggoo li ñu la wax ñun ànduñu si dañuy voté contre. lépp jàpp leen ne opposition bi parlementaire ñun rejeté nañ ko ànduñu si.